bisimila mbokk waa Leewtoo TV ñu ngi leen nuyu leen gërëm di leen sant ñëw ak nag si revue de l'arène yi nga xam ni ñoom noo spécialisé lamb muy sunu lamb record ak li nga xam ni mooy Leewtoo TV ñu ñëw ak euh, sunu lamb sunu lamb nag nee nañu te instant bi nii bal alternative la bomba Bombardier mun a am pour mun a tax ngeen moom ren ji ndax Tapha Tine mi ngi koy sore Ama Baldé Gris Bordeaux ak Modou Lo nee ñu daal kenn dong moo fi sës muy Balla Gaye journal bi aussi mi ngi Papa Sow mais instant yi nii guddi yi ñu tool nii ay bëtam daal si ku ma ko teg muy mu mooy Bombardier Gris ak ki nga xam ne moom mooy Modou léegi nag carte gi leer na parce que nee nañu Ama Baldé nee na du bëre ak Tapha Tine ndax fan yëpp ñu defee réunion ki nga xam ne mooy promoteur Pa Abdou Fall ne ko Ama Baldé daal seet na daal nee na du bëre ak ki nga xam ne mooy Tapha Tine Pa Abdou de nee na moom bu mu déggee nouvelle bi yaramam bi yëpp dafa simmeeku na xalaatu woon ne Ama Baldé dina ko war nii ndax moom nee na war la ko mun tuddee parce que desu joxe ay cachet mu xam ne mooy tafaati nee nañu daal journal bi ni Pa Abdou Fall il est euh, euh, boo xam ne baax na bilan bu catastrophique la ndax nee nañu def nañu trois trois victoires la ñu am ak sept défaites ñu si sunu laam dem dem si record record nag tey dafa euh, taxaw laaj ki nga xam ni mooy Modou Lo nee na ni Modou nag ginnaaw bu mu nekkee roi des arènes léegi nag ñaata la war a jar est-ce que 100 millions wala 200 millions ki nga xam ne mooy abulu nag laaj na ay spécialiste ki si mel ni kat yi ki nga xam ne mooy Assane Ndiaye promoteur moom daal li mu gis nee na Modou dafa war a xam ni que léegi les choses ont changé maanaam cent million millions cent millions kenn mëntu ko fay. li ay mët li si jamono gi ñu toll nii Max Margan aussi dafa mel ni day day fellu ki nga xam ne mooy Assane Ndiaye nee xalaatul ne mët dina mun a euh, laal li nga xam ne mooy cent million si jamono gi ñu tool ndax situation làmb ji moom moo ko laaj si Leewtoo TV ki ñëpp doon xaar di ko doon wër nag génn nag wax nag si micro Babacar muy Pape Thialis Faye patron Leewtoo production moom nag nee na fas yéene na tëgg ren ay combat bu ginnaaw bu mu defee saison blanche daaw nee na nag saison blanche bi nag dara waralu ko parce que combat mais euh, adversaire yi nga xam ne da ko doon proposé yenn mbër yi ñoom bëgguñu woon bëre ak euh, mbër yi nga xam ne moom doxoon na ko looloo tax mu préfère def benn saison blanche nee nag nekk promoteur métier bu métti nag nee na sax moom du àdduna dara yomb fi lépp loo xam na nga dugg rek na nga si dem ba jeex te nee na xam nañu làmb ji moom dara du fi yomb Pape Thialis Faye nag mi ngi jeexalee neen nee na ren bëgg na tëgg ay combat waaye pour la moment doxul benn combat nen neen nag mbër yi suñu bëggee bëre il faut que ñu maanaam nu wàññi cachet yi nu jeexalee na ak nouvelle bu neex yi di Boy Niang am na fa doom jigéen nee na ñu ngente bi samedi la mbokk yi loolu lañ indiloon si revue de l'arène di lañ dox dig daje suba incha allah mbokk waa Leewtoo TV ginnaaw revue de l'arène bi nu ñëw ak yéen nag si jàngatu arène bi ma ànd seeg Birame ñi ngi Birame maa ngi lay nuyu waaw maa ngi lay nuyu bu baax léegi ma di la fay di nuyu mbokki Leewtoo TV yëpp waaye nuyu équipe bi nga xam ne moom la ñu àndal waaye nuyu ñuy suivre yi nga xam ne ñoom ñoo ne ci internet bi yëpp di ñu suivre ci Leewtoo TV. binaam na li ñëw na si jàngatu arène bi ñu commencé kook sunu laam sunu laam te dafa xëy nee nañu ginnaaw tafaatin Ama Baldé ak Modou Lo bi nga xam ne mi ngi soree Bombardier nee ñu daal benn adversaire daal moo nekk si kanamam muy ki nga xam ni mooy Balla Gaye waaw loolu de xanaa euh, ñu xam ne baaxu làmb daal ñëwaat na làmb daal woneet na boppam parce que euh, adversaire moom boo koy wër dafay xaw a jafe tuuti waaye lii loo ci mënti dégg moom Bombardier bu fekkente ne Balla Gaye rek moo des comme adversaire ci la ñu xalaat Euh, ñu jëm leen dox rek ba xam ndax duñu mën a am combat yu mag yi parce que ndey ku ma mag yi itam dafa baax ci làmb ji te fu ne nii combat mag yi dafa mel ni xaw naa manqué gum ci saison bi mal que commencé gul waaye nag boo seetloo ci dox yi rek euh, combat yu mag yi daal xaw naa manqué lool. journal sunu lamb aussi mi ngi xamal ne kii di guy gi nee na pare na pour bëreek kii di nga xam ne mooy Ama Balde wala euh, wala Gris Bordeaux wala Bombardier amaana sax bañul ki nga xam ne mooy Papa mais dafa jàpp ni instant bi nii il faut que ténor yi may chance li nga xam ne mooy xale yi comme ni ko la déggee defee ak Boy ñam waaw loolu dañ koy rafetlu ndey Kumba xam nga wax nañ ko fi démb parce que mbër bu fekkente ne nangu nañu bëre seen biir euh, bañ a écarter yenn adversaires yi kenn ku ne ne man diw laa bëgg a kii ne kii laa war a bëreel kii ne kii laa war a bëreel loolu du ñàkk ci làmb xëy na wax ko waaye nag ci tolluwaayu làmb ji fii fii fii nu mu toll mooy ñi mag ñi il faut ñu wëññeeku gestu ñi nga xam ne ñoom ñoo ñi ci ginnaaw mën leen a boole ci ñoom euh, bokk ak ñoom waaye si ñoom tam ñu nangoo bëri seen biir parce que loolu dafa am solo ci làmb ji loolu bu amulee dafay mel ni combat daal pour mu am dafay jafe te ñenn ci kaw dañoo xaw a manqué tuuti bëriwuñu bareetuñu donc raison pour la laquelle bu fekkee ne guy gi wax na loolu dañ koy rafetlu rek vraiment di ko nangul aussi di wax ne euh, ginnaaw nangu na loolu Siteu tam gis nga lu mu wax démb euh, dafay mel ni même wax ji la kon dañ koy rafetlu rek daal di am yaakaar ne xëy na ténor yi dinañ bëre. Euh, léegi nag Birame def naa carte gi leer na ndax tafaatin Tine bu ñu doon tox combat ma revanche ak Ama Baldé léegi daal leer na dafa mel ni Ama Baldé bàyyi na euh, Tapha Tine nen daa fas yéene dem seeti keneen ku dul Tapha bu bëreek moom. waaw loolu day euh, comme ni ñu ko waxee rek xam nga pootum biir néeg la mooy làmb euh, li ñuy wax du du du du ëmb day xëy rek wasin euh, fi nga koy foogee mën na am mu génne feneen fu dul foofu donc loolu comme waxtaan la woon waxtaan nañu xëy na déggoo amul moo tax mu ne lii arrangé wu ma leneen laa bëgg a xool ah nañ ko xaal rek ba xam xëy na dinañu indi loo xam ne dina wax promoteur bi loo xam ne moom moo ko arrangé lu dul li nga xam ne moom la ñu jàppoon ne moom moo war a ne muy diggam ak waxtaan ak promoteur kay foog naa ni biram léegi amatu ndax nee na moom bëreewul ak ki nga xam ne mooy tafaatin koy waxtaan waroon fa mën a am xëy na kay beneen promoteur ñoo tëgg beneen combat ak Ama ak beneen mbër mais daal lépp loo xam ni si wàllum tafaatina daal Ama Baldé neen daal baare na ko waaw xanaa ñu laaj ko rek kan la bëgg kuddul tafaatin boo ko defee yaakaar naa déggoo dana am bu waxee kooku tam parce que tam lamb noonu la xam nga ay plan la boo tegee say plan A xool plan A bi doxul da ngay dem ci plan B bi euh, loolu mooy nañu xool rek xam nañ ne moom vraiment am na keneen ku ne ci xelam ku dul tafaa donc nañu ko doxal kooku ba xam fan nañu waneen di mujj gi gëtam. plan A bi moo nekkoon tafaatin Tine lan moo tax nangu woon tafaatin bu nga ko doon dox si njëlbéen ne mun ma bëreeg moom mu dem ba si biir ba ñëpp yaakaar bay waaj joxe xaalis mu ne moom d'accordul plan A bi léegi dañ ko xoolal plan B ak tamit nekkul genre war ci côté waaw xëy na mën na am sax ñu gisee ko foofu waaye man dama jàpp ne c'est reculer pour mieux sauter euh, parce que du recul sax peut-être mais noonu la ñu ko mën a waxee ci phrase bi xam nga boo xoolee ndey kumba waxtaan boo leen waxtaanee bu mu demee ba diggante bi ñoom ñu toggaat xool xam ne ah lii kat du ñu arrangé leneen moo nu gën a arrangé euh, autant ñu ne leneen moo nu gën a arrangé moo gën sax ñu toog ba avancé dugg ñu doog a wax c'est fii fii laag fee ak ñoomin seen xëy nag li gënoon mooy avant loolu yëpp. ñu xool seen bopp avant ñuy dugg sax ci discussion combat euh, diw ak diw parce que tey jii bu ñu la proposé benn mbër bu fekkente ne carrément kii nii euh, arrangé wu la wala bugguloo bëri ak moom wala en tout cas bokkul ci sa plan de carrière da ngeen koy waxtaanee sax ah bien avant promoteur di ñëw sax di discuter ak yéen donc euh, xëy na nag noonu la ko yàlla dogalee ñu jàppee ko noonu waaye li gënoon mooy ñu waxoon promoteur ba ne lii gën a ñu avant ñuy yegg sax ci waxaaleeg ñoomin seen ñu jóge nag si euh, kaawu euh, Ama Baldé dem nag si bilan yi te nag suñu lamb dafa dalal écurie plateau nee ñu écurie plateau daal gisatuñu dara contre performance totale la ñu def saison bii nu génn ndax nee ñu ñetti victoire la ñu am sept défaites. waaw ñetti victoire sept défaites écrit plateau loolu day na waar nguy jonn xam naa dina ci liggéey bu baax coach bi ñoom dimbaleeg ñoom euh, Baba Ndew wax dëggas yàlla ku sañoon sa bilan li victoire yi mooy ëpp défaite yi waaye nag bu défaite yi ëppee victoire yi et puis de deux fois même trois fois plus parce que sept ak euh, trois dafa xaw bari bëri tuuti xanaa ñu wax leen ñu gën a liggéeyaat ba saison bii di ñëw ñu am lu ëpp loolu wala ñu def controverse bi mooy jël sept yi def ko victoire jël trois yi boog def ko défaite bu mënta ñàkk wala ñu am pourquoi pas dix combats dix victoire zéro defet loolu daal lañ leen di ñaan yàlla baax na daal lu jógee nag sunu laam dem nag si nga xam ne mooy record si micro Abou Nour record nag tey dafa euh, taxaw laaj samp laaj ne Modou Lo ñaata lay jar parce que nee ñu est que Modou Lo na jarati cent millions ki ki xam ne mooy Assane Ndiaye nee na Modou Lo mu xalaat boppam ne xam ne situation bi dafa changé Max Magane aussi dafa mel dafa feelu aussi Assane Ndiaye parce que moom tamit loolu la wax. waaw xam nga Ndeye Kumba cachet mbër kache làmb dafa dëkkul fenn euh, mag ñi toogoon nañu di bëre. mu toog ba cachet yi am fu mu toll ñu dekki retourné waat bëri si lu gën a yées loolu pour làmb ji relancer wu kon loolu situation bu imposé wu la dama jàpp ne rek euh, actuellement nii nii nii pour yenn centaine de millions yi ñu koy tudd ci làmb ji day xaw a jafe tuuti xëy na nag mën nañoo dem ba ëllëg mu amaat lu romb sax foofu làmb mën naa dem ba ay milliards loolu gëm nañu ko ay instant bii yaakaar naa ne daal lañu amoon ba Bombardier di wàññeeku di bërëg cek di wàññi cachem. même ba 15 millions. jëkki sax xaaj ko xaajaat ko ba ne woon lu mat 60 millions retourné waat ba ci quinze yaakaar naa ne daal toll nañu foofu ci làmb ji te Baye Fall defoon na ko fii ak Yékini Yaxya Jóob Yékini demoon na ba am tolluwaay mu retourné dem jëli Baay Faal ci cachet boo xam ne sax ba fii ñu toog di wax ak yéen xamuñu sax ñaata la ndax neewaay ba te est-ce que sax cachet amoon na ci loolu nag maanaam euh, lamb ji moo moo tollu foofu bu ñu tolloo foofu nag mbër yi ñoo mën a defaraat lamb ji teewul lu ñu relancer waat yéegaat parce que tôt ou tard euh, ñi war a dugal seen loxo dinañ ñëw waaye nag damaa gën ne nag Euh, lamb ji moom il faut mbëri xoolaat seen cachet yi wàññi ko parce que dégg nga Pape Thialis lu mu wax euh, suñ directeur général bi ma koy nuyu baax a te lu mu wax dafa dafa am solo parce que nit ki tam aussi booy dem marché danga nga naan man lii laa mën a jëndee lii laa yóbbu la nga yóbbu marché moom nga mën a jëndee mais nga nar a yóbbu marché loo xam ne wóor na la wóor yàlla ne lii moom la fa ne ci marché ba jaru ko dafay metti donc mbëri il faut ñu wàññi cachet yi encore une fois xoolaat cachet xam ne lamb ji moo fi toll actuellement suba mën gën a neex kon nañu ko defee noonu tey ci li fi ne. suñu jigéen nag rekoon jeexalee ak Leewtoo TV Leewtoo TV tey dafa dalal ki nga xam ni mooy euh, Pape Thialis Faye euh, promoteur patron Leewtoo production moom nee na nag expliqué na nag si biir euh, interview bi lam moo tax mu def saison blanche daaw ak aussi ren bëgg na tëgg ay combat mais pour le gul commencé gul benn négociation mais nag suñu bëggee ay. combat yi mag il faut que aussi mbër yi mag yi raisonnable maanaam cachet yi daal am fu muy yam que ba bañ yëkkati euh, élevé cachet yi ba nga xam ni kenn du si gis sa bopp. Euh, loolu am ndey kumba cof nañ ci tuuti léegi parce que boo xoolee tam nit ki booy tëgg combat mu wóor la wóor yàlla ne lii su ma fayee juróomi dërëm su ma demee ba stade mënu ma cee génne juróom ya damay obligé jël sama ñaar dërëm tegaat ci muy juróom-ñaar dërëm wax dëgg si yàlla nga xoolaat sa bopp moo gën donc toog ne mbër yi nañu raisonnable. nañu raisonnable bu ñu koy wax mooy nañu wàññi seeni i cachet yi parce que nekkuma da ngay gis mbër moo xam ne dafa bëree fii léegi 100000 francs ne way suba mille lay fay ki bëre 200000 léegi jékki jékki nekk day yéeg 500000 ba ci millions yi c'est la même chose xam nga loolu tam mën na nekk mais ci ay circonstances ne bu ñu demee tey ba làmb ji xaw a xaw a metti tuuti yenn sponsors yi amatuñu ko bu caaxaan jeexee boo yaakaaree billet rek rek rek ci làmb ak sa parrain yi boo watuwulee am na yenn millions yoo xam ne wax dëgg si yàlla doo ko mën a fay kon mbër yi nañu wàññiwaat affaire yi ñu mën a fexe bëre parce que tam bu ñu bërewulee dafay mel ni dañuy rafle na ma yàlla jéggal xam naa war nañoo comprendre fan laa koy waxee parce que nit ki la ngay def bu fekkee ne dafa ko rek dafay mel ni bokkatoo kon nañu wàññi cachet yi ñu mën a ñëw bëre si parce que ku mel ni Pape Thialis dafa bokk ci làmb ji doon acteur boo xam ne saa bu jógee day jóg ak dooleem te doole jooju muy jógee tey euh, bu ñu sañoon wax dëgg si yàlla ñu mel ni moom def neneen def neneen boo ko defee làmb ji mën ay promoteur yu mag fas yéene na tëgg waaye mbër yi nañu raisonnable nañu wàññi seen i cachet yi ñu waxtaan déggoo am ñu ñëw bëre si ci saison bi yëpp boo ko defee saison bi ñëw mën na am mu gën a neex mu mën ci ay milliards yàlla ko yàlla def. amee na biram si kàddu yoon leen di tàggoo leen jox ci daje suba incha mais balaa boobu may nuyu sama yaay mère donc Mohamed Diouf di nuyu Dadigé di nuyu Astandine déjà vraiment euh, depuis Italie chéri Khadija Diallo di nuyu samay doom euh, Mam Diara Penda bébé Fallou bébé Rokhaya bébé Junior yaa ngi si biir ak Eva Diallo euh, Aïda Diouf aussi yaa ngi si biir di nuyu ñëpp ñu nga xam ne noonu doon suivre biram waaw nuyu équipe Leewtoo bi yëpp vraiment monsieur Fall ñu ngi koy nuyu monteur bi yàgg maar taalibi Cheikh Béthio bi Mansour ak euh, Babacar ñu koy ñaanal euh, wér jàmm ak salaam waaye tam nuyu Aïcha nuyu la yow mi toog nuyu ñëpp daal mboolem équipe bi waaye tam DG ñu ngi koy nuyu bu baax a baax Pape Thialis ak ki nga xam ne moom mooy monsieur Diaw ak euh, Grand Massar ñu ngi koy nuyu bu baax a baax moom tam séddoo waaye itam euh, di nuyu rek comme ni ma ko wax rek euh, xam nga waaw waa Ngunjaan parce que xam nga gëléem moom boo ko yónnee ganaar moom yaa ko ñibbiloo ah ñii waa Ngunjaan yëpp daal li li ko wër ah, Péjoor Saamel Càngaay waa Mbaaloox waa Ñax waa Mbusnaax wu ñu kenn ñoom Ibra Sarr lago yàlla Pangol maa ngi leen nuyu baax a baax waaye nuyu mboolem ñi nga xam ne ñoom ñooy suivre ci Leewtoo TV di nuyu Modou Baye Fall suma rak xam nga ni ñuy wax euh, mbokk ndey koy jur waaye nuyu suma doom bu baax mama jeena baag maam say ak mboolem xale yëpp ñu ngi leen nuyu baax baax leen ziar baax baax Bombardier ak partenaire depuis France maa ngi di nuyu ba suba allah.